Cette, cette journée. Remercier les populations qui sont mobilisées pour nous accompagner. Et euh, féliciter aussi tous les leaders de la conférence euh, de Yewwi Askan Wi qui sont mobilisés aujourd'hui au tribunal et qui nous ont marqué aussi euh, leur soutien et leur sympathie. Et euh, comme vous l'avez tous constaté aujourd'hui, le verdict attendu a été reporté à une date ultérieure. Nous en prenons acte et nous continuons à inviter les populations à se mobiliser pour la démocratie et à se mobiliser surtout pour l'avenir de notre pays. Donc je laisserai le soin au président Ousmane Sonko de faire la déclaration. Et je souhaiterais vraiment dire avec force que nous resterons debout parce qu'il y va de notre responsabilité. Nous avons en face de nous un régime aujourd'hui qui s'amuse avec les institutions. Nous en prenons acte, mais nous, nous avons choisi de marcher vers l'essentiel. Je vous remercie. ci wolof monsieur le maire tënk rek ci wolof. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di masawu tamit ñëpp di gërëm askan bi bu mobilisé wu gunge ñu tey tribunal. di leen di jaajëfee di masawu tamit parce que dégg naa am na ay xale yu jot a gaañu leen di masawu di ñaawlu tamit yenn acte de provocation yi ah, di gërëm tamit di sant leader yu coalition Yewwi Askan Wi jot a mobilisé wu ñu ma woo téléphone tamit pour encourager ma leen ah, di leen di jox seen wàccuwaay leen di sargal di wax nag askan wi dañuy continuer di mobiliser wu parce que malheureusement dañu am benn nguur bu bëgg a foyee institution yi te loolu dañ koy ñaawlu mais ñun lii di suñu warugar xam nañ ko te dañ ci fas yéene ànd ci ak fulla ak faydu di gërëm askan wi di sàkku ci ñoom tamit nañu continuer di mobiliser wu parce que loolu rek moo ñu dese tey Sénégal di gërëm ñëpp di sant ñoom. monsieur le maire loo xalaat sa reporté reporté wàcc na micro yi bu descendé un Barthélémy Diaz mi nga xam ne mooy maire de Dakar fas yéene ko gunge ci li nga xam ne àttekat àttekat bi daf ko war na def tey mooy procès boo xam ne tey defe naa ci mbir mi amee léegi war naa gën saa gàtt euh, fukki ñu waroon ko àtte définitivement yéen ñëpp ngeen ni nee nañu dàq nañu àtte bi ba mois de septembre li waral dàq bi nag ñoom ñoo ko xam waaye tey ak septembre ak 2050 la ñu yemale dañu bëgg a wax sénégalais yëpp wax ko Macky sal mooy fi ñu taxaw nii muy mairie Dakar bu soobee yàlla ci juróomi at yi di ñëw di koy jiite Barthélémy Dias loolu mënul muusa ki waane ak fenk ay pexe ba loolu ju bu am parce que loolu choix wu habitant wu Dakar la moom dafa amoon ay candidat am ñu duma leen duma goo xam ne du lu ñuy laam-laame kon bu dee yaakaar nañ ni mun nañ ko jaarale ci beneen pexe te defoon ko ak Khalifa Sall mu jàll waaye dootul am du am fenn fu mu jaaraat ba benn mairie boo xam ne yàlla jaare na ko ci sénégalais ñu dénk ko opposition mu jaar ci ay pexe tappale yoo xam ne da koy jaarale ci justice wala ci corps de contrôle wala ci leneen leneen ba nangu ko ci ñun loolu du am ñaareel bi ñu bëgg a wax mooy bu dee foog nañu ñoom muus nañu ba tey foog nañ ni mën nañu jëndee reportu délibéré Barthélemy Diaz ak problème bu liste yi nga xam ne am na parce que problème liste yi ñaari problème liste la problème liste ndakaaru yeewi askan la ñu ne liste yooyu amul dara lu war a tere ñu nangu ko parce que li dese direction générale des élections def démb géni d' mooy bañ a jël courrier liste yooyu dina jàll ñaareel bi mooy listu Benno Bokk Yaakaar dama bëgg bis ni ki tey képp ku bokk yeewi askan képp ku bokk opposition képp kuy citoyen bu engage débat bi nekkatul liste yeewi askan wi kooku féet féet nañ ko boor débat bi mooy bennoo bokk yaakaar warul bokk ci élection yi loolu mooy wax ji ñoom nag ñoom nag saa yu wax amee dañuy génn di jaay dang làmmiñ dégg naa loolu ñu jël def ko tête de liste démb nee na force restera ñu ne ko fekk nañ la ci force restera à la loi et la loi li mu wax ci bii mooy Benno Bokk Yaakaar warul bokk élection ñu ciy wax nag ak conseil constitutionnel jamono jii ñuy wax nii Déthié Fall jóge na conseil constitutionnel déposé na recours yi ñu war a déposé bii paa nag ñi ngi xaar conseil constitutionnel. te fuñ ñu woo dinañ ñu fa fekk te bu soobee yàlla ci fan yi di ñëw dinañu organiser un grand rassemblement à Dakar di ci woo Sénégalais yëpp rawatina jeunesse bi. parce que Macky Sall 18 mois moo ko dese ci bopp Sénégal desew ko benn fan de plus bu 18 mois yooyu jeexee dafa ñu war a abal ndax koo xam ne bi fu toogee ba léegi fitna sur fitna complot attaqué opposants yi ku ne d'accord ma nga tëj jaay suñu réew jaay alalu réew mi wër di yelwaan suba ngoon naan tubaab bi jox leen ñu kooku Sénégal ci boppam moo dayal ci moom 18 mois yooyu nag bu yaakaaree ni mun na jaar ci ëllëg pour pour li nga xam ne moo war a acter définitivement la fin muy élection législative yi nax na boppam. loolu lañ ci bëggoon wax ci lu gàtt. di delloo si di delluwaat di masawu ndax am na nee nañ ñu ci provocation yooyu am ci yoon bi am na ñu ci gaañu ñii di jóg di provoquer dañ leen di wax ñu tey parce que koo ëppul doole ko gaaw a song koo ëppul doole ko gaaw a song ndax lii mun nañ ko organiser ba tey. maire bu fi organiser propagation dootoo génn Dakar loolu mën nañ ko te dañuy jël le peuple à témoin ñuy dox romb di dem seen yoon mooy que di attaqué parce que bu riposte amee rek boo matul dootoo génn ci ci sa mairie kon en français ce que je veux dire ce que en wolof rapidement euh, c'est d'abord euh, dire que nous étions venus à notre nom et au nom de tous les leaders de Yewwi Askan Wi beaucoup de leaders étaient déjà au tribunal beaucoup de leaders euh, donc au nom de tous ces leaders là nous étions venus accompagner monsieur le maire de Dakar Barthélémy Diaz pour euh, le verdict qui devait être rendu aujourd'hui et qui devait nous permettre de tourner une page qui dure depuis très longtemps depuis plusieurs années maintenant Le tribunal a décidé de renvoyer le prononcé de ce verdict. Il en a le droit. On n'en connaît pas les raisons. Mais ce que nous voulons dire sur le plan strictement politique, c'est que celui qui pense pouvoir acheter la forfaiture qu'ils veulent faire sur la liste de Yewi Askanui à Dakar par le report du verdict sur le procès en appel de Barthélémy Diaz, il se trompe. Pour nous, ces deux sont négociables. La liste Yewi Askanui de Dakar doit être réintégrée parce qu'elle n'a pas été foreclose et que la Direction générale des élections a commis un déni d'administration en refusant de prendre les euh, rectifications qui étaient apportées par le mandataire. Mais l'élection de M. Barthélémy Diaz et de tout toute l'équipe municipale, parce que cette ah équipe municipale, il faut le comprendre, c'est l'équipe de tout Yewi Askanui. Il y a des conseillers de PASTEF, des conseillers du PUR, des conseillers de AND, des conseillers de toutes les autres formations politiques. Cette victoire durement acquise, nous voulons dire à Macky Sall que s'il pense que c'est par ce dossier qu'il va passer pour reproduire le, le, la forfaiture qu'il avait déjà faite avec M. Khalifa Sall, il se trompe lourdement. Et c'est pourquoi je dis, ni l'un ni l'autre ne sont négociables pour nous. Mais lancer aussi un appel. Ils ont voulu nous retarder avec un débat sur euh, Waye, Ayewi, tel a fait ceci, tel a fait ça. C'est dépassé pour nous. Désormais, il n'y a qu'un combat, c'est que Benno Bokayakar ne doit pas être sur la ligne de départ Hier, ils ont admis qu'ils ont déposé plus de parrains qu'admis par la loi. Cela suffit, il n'y a plus de débat. Benno Bokoyakar ne doit pas compétir. Et eux-mêmes ont dit que force doit rester à la loi. S'ils pensent que force doit rester à la loi, c'est faire des forfaitures et se réfugier derrière les forces de défense et de sécurité à qui on fait jouer un rôle qui n'est pas le leur. Et penser qu'on veut faire un forcing, ils se trompent. Force restera à la loi et nous interpellons directement le Conseil constitutionnel. Il faut que ce Conseil constitutionnel arrête d'être à la solde de Macky Il faut qu'il arrête d'être à la solde de tous les pouvoirs. On en a marre d'un Conseil constitutionnel qui toujours est à la solde Ce même Conseil constitutionnel, ce même Et ça, c'est un argument superfétatoire même, mais ce même Conseil constitutionnel avait dit en que le seul fait que Malik Gakou et déposé plus de, plus de pareil que, que, qu'autorisé par la loi suffisait à invalider sa liste. Ce même conseil conseil ne peut pas revenir nous dire que Benno Bokoyakar, qui a déposé plus de parrains que, que de normes, va être admis pour compétir. Il faut que les gens arrêtent. Et le débat aujourd'hui, c'est ça. C'est non à la candidature de Benno Bokoyakar à ces élections. Et dans les jours à venir, nous allons développer une feuille de route. Nous allons nous mettre en formation de combat. Et nous allons faire face à Benno Bokoyakar et à Macky Sall. Je vous remercie.